saluer la présence de certains membres du bureau municipal, saluer aussi vous, mesdames et messieurs de la presse, qui avez bien voulu euh, répondre à notre invitation. Saluer aussi l'opinion nationale et internationale, particulièrement ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux présentement. Dire que J'ai souhaité aujourd'hui communiquer d'abord avec le peuple de Dakar en particulier, mais en général avec le peuple sénégalais, sur une volonté manifeste depuis un certain temps de vouloir diaboliser la coalition Tahaou Sénégal, son leader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

Le deuxième adjoint est un homme. Je rappelle que le FSDBJ n'était plus membre de Yeri Askambi. Mais pour nous, Yeri Askambi, c'est d'abord un esprit. Parce que personne ne nous fera croire à nous que M. Cheikh Bambedie n'est pas un opposant. Le troisième adjoint se trouve être une femme. C'est le pasteur.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 Serigne Mansour Sy Djamil, représenté par Madame Aïda Niang. Et sur 100 conseillers, je peux vous dire que y a à dire et à redire. Mais Madame Aïda s'est investie personnellement avec tous ses camarades du département de Dakar au niveau de Bosduniak pour faire triompher notre liste. Le douzième poste revient au Tahaou. Le treizième poste revient au parti 7.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

et qui sont membres de Yewwi Askan le grand parti du président Malick Gakou n'a qu'un seul conseil il est membre du bureau municipal membre de Yewwi le parti du ministre d'État Habib n'a qu'un seul conseiller sur 100 ils sont aussi membres de Yewwi Askan Wi ils sont membres du bureau municipal le parti du ministre Habib euh, Moustapha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

nous sommes trois, membres fondateurs de la coalition Yewi Askanwi. Je voudrais d'abord commencer par saluer respectueusement mon papa, Serigne Moustapha Sy, di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal ko yàlla yokkal sutura ak wér ak wérle interpeller monsieur Khalifa Sall qui est hors du territoire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 Je terminerai mon propos en vous disant que nous, de la coalition Tahaou Sénégal, notre candidat s'appelle M. Khalifa Ababakar Sall. Je rappelle à certains qui veulent aujourd'hui faire croire à une certaine opinion qu'il se peut qu'il y ait une lune de miel, ou bien il se peut qu'il y ait un bourreau axao. Je voulais vous dire une chose. Nous avons été exclus du Parti socialiste depuis maintenant bientôt une décennie.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 Sénégalaises, Sénégalais, main dans la main, épaule contre épaule, marchons vers l'essentiel. Je vous remercie. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi gërëm mbokk journaliste yi fi ñëw tey fekk ci tey suñu point de presse bi point de presse bi nag lu ko waral mooy bureau municipal bu ville de Dakar bu ñu jot installé démb mu am ci mbokk yi ay mbokk yu fi gedd def yëfu xalel ne nag dañuy génn bëgg ñu dëkkaloo ñun fu ñu dëkkul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 ci li tubaab di wooye suffrage universel rek mooy daanaka askanu Dakar ñoom ñoo ma fal man nag lu ma jàppoon mooy man nuñ ma falee ak nu ñu naree falee membre du bureau municipal yi bokkul du même mode de scrutin donc man du ma gëmoon mooy man su ma nekkee maire kuy topp ci man mën na nekk góor wala mën na nekk jigéen.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 Pastef jigéen moo jël premier adjoint kenn mësul dégg waa taxaw xas leen wala saaga leen wala jëm leen dëkkaloo fa ñu dëkkul deuxième adjoint ñetti yoon la ñu wote pour que suñu camarade Ibrahima Ndiaye mën a jàll kon nag kan mooy jàmm am na ñu fi waxoon Khalifa Sall dafa naroon bokk ci élection yi par force dem assemblée nationale ñu lank bañ na duñ ko voté kan mooy jàmm